أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنسى بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون عونك يا مهين وبك نستعين بارك سيو الخديم بك جلدي بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam gannaaw bi ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonente bi dellu di jaajëfalaat ku tedd ki Cheikhul Khadim waaye ñaan yàlla mu yàggal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké lool te wéral aw yaramam ngi ñaan i tamit Serigne Alhaaji Mbacké Khadimul Khadim yàlla yàggal ko fi lool te wéral aw yaramam yal na Serigne bi nangu ab liggéeyam te ful ko na mu gën a bare bu ko defee ba tey rek ñu ànd ak yéen ci téere yi nga xam ni Serigne Alhaaji Mbacké Khadimul Khadim mi ngi koy bind tay nañu fassiyene andi téré bo téere boo mi ngi ko tudde nubsatun min hayati cheikh Ahmad al khadim khadalahu allah makhtar lahu di téere boo xam ne Serigne Mouhamadul Amin bara Mbacke mom cheikhul al khadim moko bind. Serigne al Alhaaji Mbacke nag yaatalaat ko ci wolof ci ndigalu Serigne Sidi makhtar ngir julit ñep man ci jariñu bu ko defee. mu tàmbalee ci ni wax ni bismillaahi rahmaani rahim yàlla na ma sama borom dimbali ba bañ a yokk dara wala ma koy wàññi ci téere bi yàlla na àggale lépp ci boroom te defal ko ko ak yokku guy sax faw ci barkeem ak barke booy juróom Serigne Touba xaadalahu allah maxtaaralahu wax ne aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim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 Serigne Touba xaadalahu Allahu maxtaara lahu ñetti weer la am Mbàkke Bari ak ñeenti fan jóge fa bisub gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar xarajtu yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar ci atum jeesasin ci ndigalu yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama tasliman ci ndigal yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallam ak woote borom ndar sëriñ bi itam bi muy dem ndar daaruloo wut lenn lu dul boromam ndax fay namaatu walloo fa sama wajhullaahi inna allaha waasiun alim sëriñ Tuubaa xaadalexo laax maxtaar loxo am na ndar weer ak fukki fan foofee la jóge jëm Gabon ginnaaw bi mu jaaree Dakar am fa ñaari fan foofee fa Gabon fa la ko sunu borom maye may yu rëy lool musal ko itam ca noonam ya am na fa juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer yi manqué juróom-ñaari fan bi mu matalee ab liggéeyam ci géej ga lañu ko delloosi mu jaaraan Ndar am fa fukki fan ak benn bu mu nekkee Ndar am na bis kilifa ga woo ko bi mu agsee fekk mu yor ab kaamil akub der daa teg der bi fi suuf teg ci kaamil ba julli ñaari ràkka bi mu sëlmalee daa di wax kii tekki wax ji ni ko bu la genn ragal taxa bañ a samay wax ci moom ak li mu may wax bokk na ci li ko kilifa ga wax bala ma wax ak moom day dindi kaalaam gi sëriñ Tuubaa xaadalaxo Allah maxtaaralaxo yëkkati ko tuuti delloo ko mu ne ko nee na ko sànni fi suuf sëriñ bi ne ko bañ na mu mer di wax lu ko neex waaye nettali bii lu yéeme la doy na itam ak waar sëkk ndax booba ñëpp a maase ragal leen wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu bi serigne bi joge ndar jaar na si fa la nek weeru koor wa joge fa jëm daru salam ak Touba ak daarul manan ñetti wer ak ñenti fan la fa am daal di dem ganar, bisub gaaw ci ñeenteelu fan ci rabiul akhir atum ak sësin fofé la ko naar ganar yi daan waye wayu yéme bari lool ñu daan ñew ci mom ngir aduna mu leen di jox mbolem sakku naka noonu am ñoo xam ni mbirum ëllëg moo leen di tax a ñëw mu leen koy fajal bi mu jegee gànnaar ci atum Haksesine la ñëw Jolof ci atum Haksesine foofee la nekk ba ci atum Taksesine mu ñëw njaareem ci ñaar fukki fan ak benn ci tam xarit atum la Sesine ba fa sëriñ ba ñëwee daa mel ni dëkk ba daa dekki ginnaaw bi mu dee ñëpp tàmbali di fa dëkk mu rafet lool sëriñ bi itam dig la ñu def fa jumaa joo xam ni kenn mës sa gis ju rafete ci jamono jooja ajjuma jooju fa njëkk julli ci atum wam sachin la weeru safar juróom-benneelu fan at mii ci la sëriñ bi làqu lii ak yeete la ci melaw làquk sëriñ Tuubaa xaare la Allah maxtaara la sëriñ bi bi muy bëgg làqu am na saan goo xam ne daa wax ne na ko ñëpp teewe bi mu jullee ba sëlmal am ko mu wax mu tambale fatiha di jàng bi mi jàng ba ci ordan lil mutaqin mun ko jàllal mu jàll ba ca al muflihun mun ko taxawal lolu moy melaw julit ñi niko weyel mu jàng ba ca al azim mun ko taxawal lolu moy melaw nafiqi ak yefari yi tàmbali di waré aka leral ci mbirum aduna ak ëllëg ba mu yàgg mu ne tey la ñaata fan ci weer wi nu nekk ñu ne ko fukk ak juróom benn mu ne yaa ayyuhan naas u'budu rabbakum wafalul xayra la'allakum tuflihun lii mooy waar yi mu mujj waare ci jumaa ji daal di dellu ci kër ga bi timis jotee julli na ci jàkkay biir kër ga ak gee ak suba suba googee la mujje julli ci jàkkay kër ga muy bisub dibéer ndax waare yu ma doon wax gaaw woon ci weeru tamxarit ginnaaw julli suba googu nag kenn xamaatul ci moom dara bajant jant so am na bëkk néeg bu ñuy wax Serigne Makhtar radiyallahu taala anhu moo ko daan taalal làmp bi nee na guddi gi altine taalal na ko làmp bi toog tuuti Serigne bi ne ko man ngaa dellu loolu mooy kàddu gi mu mujje wax ak nit te suba mu dellu si am na sax ñuy wax ni seriñ Makhtar xamoon na lépp waaye da koo ñemewutoon a wax. ci talata mu delu ci nama ko don defé anda jaxlé lol di xaar ndax dana dégg kàddu wala yëngutu ba takusan déggul dara mu ñëw ci serigne mohammed Mouhamadul Moustapha radiyallahu taala han wax ko mu ne ko dematal ba gëna xam bi muy demaatal seeg sëriñ Mouhamadul Amin Diop radiyallahu taala hanu mu laaj ko mu ne ko man xamna barab ba mu nek waye munuma ag sëriñ Mouhamadul Amin radiallahu taala anhu jaaxle lool daa di xëy na daa nekk ci xalwa waaye dellu sëriñ Mouhamadul Moustapha radiallahu taala booba jant baa ngi waaj a so bi mu agsee ni ko wax ma li nga xam ci sëriñ bi mu ne ko man xam naa barab ba mu nekk waaye ñi mu faa àgg sëriñ Mouhamadul Moustapha daa di ne sëriñ Mouhamadul Amin luy sa xalaat mu ne ko maxtaar kay mooy xalaat sëriñ Moustapha ni leen bu leen ragal nañu dem bi ñu agsee fi mu nekk. sëriñ Moustapha digal Maxtaar mu yor làmp bi te dugg bi mu duggee yam ci sëriñ bi yam ci sëriñ Touba xaada la Allah Maxtaar la xoo mu gaaw génnaat sànni làmp bi ci ginnaaw kër ga fekk na sëriñ bi tëdd ci diggante ñaari der yu ñu teg ay téere ba mu fees bi nekk ci kanamam bii nekk ci ginnaawam ñaari tànkam jëm ci bunt bi mel ni koy jàng yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya su ko defee alterné ji jiitu lii taw na taw boo xam ni ñu bari xam nañ ni tegtal la ci làquk Serigne Touba xaadalaxu llaahu maxtaara lahum bi Serigne Moustapha agsee ak Serigne Mouhamadul Amin radiallahu taala anhuma ba gis jëmmi Serigne bi dañoo delluwaat gannaaw taxaw ci biti xaddami ko waaye dégguñu dara Serigne Mouhamadul Amin wax asalaamaaleykum déggul dara mu ne Serigne Maxtaar jox ma làmp bi nanguwut mu ne kon bàyyil ma dugg làmb bi mu dajee ñaari tànk Serigne Touba xaada lahu Allah maxtaara lahu mu raay leen ni asalaamaaleykum déggul dara Serigne Moustapha radiallahu taala anhu door a jël lampe bi ci maxtaar dugg bi mu raayee tànk sëriñ bi bàgg ci dënn bi ci la door génn wax maxtaar ni ko demal woo noddkat ba ñuy wax mahmadan bu ñëwee ngeen ànd taxaw ko man maa ngi dem ci kilifa dëkk bi diisoog moom ci lii bi ñu koy waajal dañu ko fekk mu set wecc ñu doole koo setal sanko ci juróomi mbalan yo ànd kala li lepp ci bir neeg bi mu wacce la serigne mustafa ànd ak bàyyi bu ndaw bu ñu wax habibullah radiyallahu taala anhuma te kilifa ga fa nekkon boba bañu ko xamalé lolu mu andak ak ñoom ci guddigi gi bi mu agsee taxaw ci buntu soow bi serigne mustafa radiyallahu taala anhu wéré jaar ci buntu bu mag bi daal wax serigne makhtar mu tejj buntu soow bi bi kilifa googu gisee serigne bi ba xam deug deug mbir mi la serigne mustafa Moustapha radiyallahu taala han wax ni dañ ko yobbu Touba mune len man ta ñak ma wax ko borom dar ba nopi waye sax da ngeen koy bayyi ba suba serigne mustafa radiyallahu taala hanu ne ko man ta nek bo amé day indi gu waral yengutu yu bari mu doora a ak ci lolu daal di delu kërëm serigne mustafa radiyallahu taala hanu daal di taxaw ci buntu ne maxtaar demal wool ma sëriñ Basiiru radiyallahu taala anhu mu ñëw mu ne ko demal indi ab oto mu indi ab oto tekki ak kees ñu lal ci am mbaaj jël sëriñ Tuubaa xaadalaxo laahu maxtaar laxoo teg ko ca kaw wax borom oto bi ni ko bul taal benn làmp sëriñ Basiiru dugg ci kanam ànd ak Muhammadul Amin ak maxtaar ak noddkat ba Muhammadu radiyallahu taala anhu kenn taalu làmp ba ni ñu génn dëkk bi noonu yi la ñu génne njaareem dem nañu ba àgg Tuubaa dara dogu leen bi ñu agsee itam jaariñ ci yoon yi ñu miin dañoo jaari weneen yoon bi ñu agsee am ku yéeg ci kër gi daal di tijji ñu jël kees gi teg ko fu nëbbu daal wax ka doon dawal oto bi mu dem gede woowi Sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu taala anhu te wax ko mu gaaw fekk na bi ñuy génn njaareem Serigne Moustapha yónni na ndaw ci maam Thierno radiyallahu taala anhuma ne ko na daal di jawwale Touba te bu mu yeex mu daal di ñëw bi mu agsee daal di yónnee ci yeneen mag mel ni Serigne Mouhamadul Amine gay Serigne Abdourahmane Lo Serigne Ibrahima Ndour Serigne Mahmoud Diakhaté radiyallahu taala anhum bi ñu dajee ñu waxtaan ci barab bu ñu koy denc am ko wax ni daanaa ko dégg lu bari muy tudd ñaari garab yi ñu dëppoo ci denc ko foofa. barab booba fi la jullee woon tabaski atam yasashin njëkk muy dem ci géej gi maam Cerno itam bi mu agsee la yónnee woolu Serigne Fadilu radiallahu taala anhuma Serigne Mbàkke Buso radiallahu taala anhu daal di koy jiite bi ñu bi ñu nappee la ñu fa def baraak bu ko tiim bi ñu nappi ci baraak boobu nag la fajar xar am ku noddu maam Cerno radiallahu taala anhu jiite leen suba sëlmal waar leen door a tàgg waa Touba wuti njaareem léegi dégg àllarba la woon ñaar fukki fan ci tamxarit atum wam sisin mel na ni waa Touba bi ñu xëyee ba gis niti nguur gi ak takk der yi la door a xam ne am na lu xew bis boobu lu nekk déggees na ko ci wax lu nekk gisees na ko ci jëf maam Thierno radiyallahu taala anhu bi mu agsee njaareem ci kër Serigne Touba xaadalahu allah maxtaaralahu daa yónnee ca soxna ya wax leen li am waa dëkk bi itam bi ñu xamee lii ku nekk tàmbali di def maninam waaye dañoo xalaatul wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min xablin rusul a in maata aw xutilan xalabtum innaka maytun wa innahum maytun bu ñu xalaatoon lii ak yeneen aay yu bari yuy tegtale jeexuk àdduna ak ñàkk solok àdduna kon mbir mi woyof ci ñoom bu ñu xalaatoon li Sëriñ Tuubaa xaadalaxu Allah maxtaaralaxu wax ni bàyyi naa nit ñi jëm ci ki leen bind kon mu gën a woyof waaye kenn du ko xalaat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 waaye sëriñ alxaaji Mbàkke xaadimul xaadim yi tamit moo ko bindaat yaatalaat ko ci wolof ci ndigalu sëriñ Sidi Maxtaar radiyallahu taala anhu kon yàlla nañu ci yàlla sun borom boole defal lu kawe suñu njort ci àdduna ak ñoo ngi jégguli ñëpp di ànd nag ak suñu télévision bi nga xam mooy social shopping ñoom ci wàllu yaatal bi ak filme bi yàlla na leen sa borom defal lu kawe seen njort ñoom it tabarkee liggéey bi te yokk ko ñoo ngi jéggulu ñëpp di baalu ñëpp ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.